Thank you asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nuyu nañ leen niñ koy defee saa su nekk ci seen biir émission zap série tey nag ñu indi leen seen rubrique revue de série revue de série nag ñu gis ne semaine bi série yi bëri na ay suspense ñu tàmbali ko ak série boobu di wiiri wiiri wiiri wiiri nag gis nañ ne naa jamono ji moo moomee vent mi ngi gàllayaa bi ni mu ko neexee Cheikhouna moomee jër jàpp na instant yi Binta otage ndax liñ naan xaalis kum song rek daan la jamono ji ku nekk ci guddi gu la setagul moom mooy Jojo li waaye li tubaab di naan derrière chaque grand homme il y une grande dame ba tax na Soumboulou moomee jël na ay takkaayam jaay ko rien pour relever entreprise Jojo nee na Jojo nag doom a gën a goro keneen ku nekk ci guddi gu bër sa setagul mooy mbay mbay nag dafa mel ni li olof Njaay naan leptoo faytoo moo ko dal li mu doon def Soumboulou lépp yàlla moom la ko fay Jojo nag fi toll nii traître bi muy wër du kenn ku dul Aïda di secrétaire am de confiance lii lañ naan sa loxo ndeyjoor lu mu yëg moytul sa càmmoñ yëg ko bu ñu jógee ci série boobu nga xam ne moom mooy wiri wiri ñu jàll ci mbetteel mbetteel nag dafa wuyu turam ndax Papa Diouf ndeke leem-leemal gépp moom moo rey kii di yaayu Amina liñ naan nit mu ndekk dina am ñaari visage li ñëpp di laaj jamono ji kay mooy kan moo war a jur leena ginnaaw bi ñu demee ci sëriñ bi ba sëriñ bi leeral la ne ne faatu ñaari doom yu góor kese la am muy Amar mi gaañu ak Talla cey Ndey xale féroce ñëwati de de moom daal nee na du dellu ginnaaw benn yoon ku ko wokk mu xuri la li nekk mbetteel ba nekk mbetteel dëgg mooy taala taala mi nga xam ne ca yaru ga taala ca tey ga ndeke li dun xaaf mi ñu doon wër agresseur bu mag boobu du kenn ku dul taala ak lu mu ci munti doon tamit nañ xaar fu ñuy mujjee bu njëgee ci série boobu di mbetteel ñu jàll ci Pod et Marichou Pod borom fi du réy wa takk na bétti de xale féroce

problème bi kay moy num koy waxe ak kum koy wax moom Marichou momé dem na ba ak papam Kader fi mu nak dafa melni ni nar naa tekki dé est-ce que liguey bi mu doon wër sax dina ko jarati Eva nak demagul keur pot commencé nek en faillite la puissance dal boudé deugay deug rek moy la puissance bal fi la yem ak yeen mbokki internet yi jox leen rendez-vous très prochainement mais laataa loolu du ma def le remercier nak à sama alaaji as sama assurance vie lu kenn ko dul jacaria Bari waaw moi me gêne fii tey ne ma solu rek dem defi émission mon cœur jërëjëf di leen te rendez-vous très prochainement ci une émission Zap Série jaa ngeen